وإن الحمد لله الحمد لله الحمد لله ku ñun féewalee tarixa beeg yu ci aw yow ñun si ñoon waru cee nekk principe bi bis ci di Hamza mii di demee ñu ñun ñëpp moom lañu war a demee mooy ñun ñëpp nañ nekk benn ñu bëggante ngir Cheikh Tidiane ñu jàppante ngir sewutaan waaye ku ci nekk ormal sa morom ku ci nekk ormal sa morom kenn du ne alaaji Aji Abdoulaye la ko ne itam Aji Abdoulaye Niass taalibe Aji Malick si la musu ko nekk nit ku baax dem faas jëlee fa lu baax jaar ziara Aji Malick si ba jox ko yóbbante même bu fa defoon at ñibbi est que tax na nit nekk taalibe nit nit koo jàngalut joxoo ko wér ijaaza loo ko far ngay nekkee sëriñam ci sàtt lu ñuy wax ne taalibe la kon xam nga naa feq yi bëgg a dox diggante famille Tivaouane ak famille Médina law nañu seen ñoom ñoo bon waaye ñun ñi ñu ngi ni toog tey benn lañ et on le dit devant Chérif parce que il sait toutes ces réalités faralul ma Samba faralul ma Demba moom ambassadeur Cheikh Tidiane la ñu bëgg nag ñu raxas xool yi nañu raxas xool yi Tidiane mënut ta toog di wax Allah Allah ba pare di ci xalaat moroomu tijaanam leneen Cheikh Tijaan lu mu wax wax leen ne seen yéen tijaan yi yéen yàlla seen moo waxal yow Cheikh Tijaan waxal tijaane bu ñu lorante seen biir suñu lorantee man la ñuy lor ñu bañante ku ci bañ sa moroom man nga bañ ku ci dóor sa moroom man nga dóor bu fekkee yéen ci yàlla Muhammad moo wax lool ñun est que war nañ par parforoo diggante ma Samba ma dem ba ku ci mel na ñun bàyyi ña suñ sëriñ at bu ne dana def tuur Sénégal waxuma la sa sëriñ tijaani xataa murid yi leen daan ziar ji ngir lan mu ne pour l'islam bi moo jiitu après tarixa bi bénéfice la bu ñu yàlla may ku yàlla may nga judd ci l'islam dee ci dem àjjana santal yàlla mais ñun ñu yàlla may bénéfice ñu jàpp ci tarixa tijaan bi ba am ci ñu ciy may te may yooyu yëpp ku ñu ko may mooy mag ñu baax ñi ko gaaral ñun war nañ sant yàlla gis nga Sénégal fii ku fi bañ Alaaji Malick di nga dee parce que fajar gu ne di ko dégg comme ne comme naqari di nga dégg Nasirul Aqbil ak barke Hajji Malick si la timis ku ne di ko dégg liggéey bu rafet bu mu def fii képp ku ko bëgg a suul ak yow naa fekk nga ak koo mën a doon nag et je prends ma responsabilité parce que ki ma yar honnêteté la ma yaree muy Cheikh Assane Cissé mooy ñun lu baax rek la ñu nangu te fekk fu ñu fekk lu baax rek d'accord nañ ko te man sama baay ci la bokk su ma pa sama yaay sama nijaay ñi ñi toog ci la bokk bu fekkoon dafa maa gis man ma nekk ci leneen moom mooy njëkk a ñëw ne ma Abdou génn ci waaye ba ma nekkee taalibe Baay ko ndax lan cër bi ñu yàlla may tarixa bi mu nangul ñu ko kon nañ lu ñu xaar àndoo nekk benn na fekk yi ñu bëgg a féewale buñ ko nangu gis nga tey benn point di ñoo lañ am ñun ñëpp Sénégal mooy kooku buñ ko waxee ñëpp a ko nangu nañ jàpp ci loolu muy lan ñun ñëpp taaliba Cheikh Omar lañ ñëpp a ko nangu kenn bañu fii kenn bañu fi ne Cheikh Omar du sa woon nangu nañ ko métti na bàyyi nangu nañ ko taal taal yi nangu nañ loolu parce que loolu yàlla ko def amul kenn ku bokkoo sa la gisoo ci ñu bind ci ne Cheikh Omar Fouti Tall muy al Maam Abdoulaye Niass muy Hadj Malick Sy waaye nag bu fekkee ne tarixa bi tey mooy mooy taaru l'islam ñu ne tey y a plus de presque rek minimum tarixa tijaan ëpp na plus de quatre cent millions d'adeptes plus de quatre cent millions d'adeptes yi nga xam ne ñi ci Baye Niass lañ jàpp ba dugg ñii ci Alaaji Maalik lañ jàpp ba dugg ñii ci Cheikh Omar Fouti Tall lañ jàpp ba dugg ñii ci nekk fu nekk ñi ngeen xam ñëpp fa tey est-ce que war nañ toog tey ëllëg ñu wane taaru tarixa bi pour propagande tarixa bi pour ñu ci bokkut bokk ci ñu ñu war a nekk ci mbii du xuloo ko ngaay loolu gàcce la sax ñun loolu gàcce lañ parce que tey war nañ am leneen lu ñu war a tal lu dul wax ñii mooy am nañ suñ kurus dañu war a wér di benn woykat da daan ci jamono bàyyi mën a jàpp leen seen kurus tey wérde bu leen di ŋaayoo li leen wax na leen neex ngir siidi barxaam mooy jàpp niñ jàpp suñ kurus ñu moom lañ war a gën a tal parce que adduna gi lu gàtt la ci jawwtaan wax mu ne man yaarif nii man yaarif nii wax di képp ku ma xam man kese ngay xam li tax jawwtaan mu ne kuñ ma suulaale nga dem safar mooy moom maqaamaam bi amul dendandoo bu fekkoon tey wallaay ku am mbooloo oote kon bàyyi mun naa waja tarixa wala li mu am ëpp moo tax mu rond ba tey ci ginnaaw jawwtaan mooy jawwtaan amul morom képp koñ fa oote fii sëriñ dañu teg bàyyi ñu sewet duñ ko teg jawwtaan bu dégg nag na dégg képp ku ñu waatee fii sëñ adduna bi laa wax ba ñaan naan sëriñ bi ba pare de si Baye Niass wala Alaaji Malick doo fa gis ma doon Cheikhou Tidiane parce que Cheikhou Tidiane ne moroomam taalibe Cheikhou Tidiane nañ koy naqal koy nañ koy nettale kon war nañ xam luñ am war nañ xam luñ am luñ am trésor bu mag la. mooy ñun ñëpp nañ nekk benn nañ fóot xol yi ñu nekk benn am na ñuy dox jamono ju nekk parce que tey la toile les réseaux sociaux xamoo waa ji publier on ne mën nga gis benn waay def erreur sax balaa nga koy baal sax cinquante nit ñi nga xam ne mun na am sax bokkul tarixa bi mm-hmm. jël ko partagé ko rek pour guerre am mm-hmm. nañ yeewu mm-hmm. ciawoon a ngi nii tey mi dina bàyyi ngi nii réeroo bu ci am war nañ mën a toog ñu nekk benn waaye buñ nangul na fekk yi nga xam ne nag il veut détruire l'image de marque de notre union de notre cohésion de notre bonne entente et de notre condicibilité ñu jël ko yàqal ñu ko buñ ko nangu et je le réclame devant Chérif Hamza di pour que nous, Tidiane du Sénégal, qu'on soit unis. On a le même, le même on fait le même lazim. Il a pas de lazim à l'Adji Malik, de lazim de Bagnas. C'est le même lazim. Il a pas de wazifa Bagnas, ni de wazifa Adji Malik. C'est le même wazifa. Il n'y a pas de khadra Juma Medina Baye, ni de khadra Juma Tiawan. C'est le même khadra et de cours de la grande famille de Moulana Chama Tidiane, de la grande Zawiya de Fès. Regardez, il n'y a qu'un qui s'est dispersé partout dans le Et cette Zawiya a, a, tellement produit de grandes personnalités à l'image de Bagnès, de Haji Malissi. Au lieu qu'on les réunisse pour en avoir un, un, un plus, on les leen on am lu pas bu ñu leen plus. ku nekk avons des ak ku ci nekk nag ñun soxla nañu waa Tivaouane waa Tivaouane soxla nañu on a besoin de ils ont besoin de nous et puis sax duñ ay soxla wante ñun ñëpp benn lañ ñii nañ nekk fii liggéey ñii nekk fii imam Assane da daan wax ne toolu Baay Ñas bii dafa yaatu danay jox image mu ne mun nga xëy suba teel ba béy ci tool ji bàyyi si ba ngoon doo dajeeg sa morom kon soxla wul xulo mu na naka nag toolu Cheikhou Tidiane bi naka toolu Seydina Mouhamed bi waa ji nekk fii Brésil di fexe pour nit ñi nekk musulman dañ ko jàppale mu ngi fa di liggéey ñii nekk Afrique du Sud liggéeyuñu leen ñii nekk Mali ñii nekk feneen war ñun jàppalewuñu leen kon ñun ñi nekk fii Sénégal ba dugguñ sax quatorze millions quinze millions yemaguñ ak Nigéria yi nekk ay cent millions nangam nangam bés bu njege boobu fan lañ kon lañ jëm nañ góorgóorluwaay ñu defalaat si histoire bopp man xaw ma kañ la ñuy toog man de si moo vaut le plus le plus cher ñu toog di seen xalifa tijaay dem ñu toogandoo xaw ma kañ lay am te ma je ne sais pas pourquoi ça peut pas se passer ah, je je je vous l'avais demandé Serigne je vais demander nga ñaanal ñu yàlla xalif yëpp toogandoo ñu ne Medina bàyyi nga ni toog Tiwaawan na ngi ni toog taal taalee ngi toog billaay wallaay taala lu ñu bëgg Sénégal moo fi am billaay ku ñu ne kii mooy nekk président wallaay moo fi falu war nañ siggil suñ bopp ñu am ay zawiya fii nga xam ne zawiya Baye Niass la zawiya Alaaji Malick la yi nga xam ne à l'image de ñeneen suñ mbokk taalibe ñu ngi koy liggéey te boolewuñ ci wax surtout murid yi ñu ngi liggéey boolewuñ ci wax lan moo tax ñun ñu bëgg nekk ci wax nañ góorgóorlu ñu nekk benn dënn di devant devant Chérif pour mu ñaanal ñu yàlla ñu nekk benn. kon boog nañ taxawaat ñu dellusiwaat liñ nekkul benn moo waral comme neex woote li la neex. comme neex rek woote li la neex comme dara du la jafe moo waral kum neex nga woote li la neex mais buñ nekkoon benn ñu ko rejanté ko na nangam la la wax dëgg yàlla du am nañ góorgóorluwaat à l'image de Aji Malick à l'image de Aji Abdoulaye benn ñu àndandoo yàlla naa feqi bu ko yàq yàlla nañ góorgóorlu ñu àndandoo ngir man de kenn mën da tax ma bàyyi Khalil Soumaré mi te duma ko oo oh, da kaay nekk taal bàyyi te parce que xam na ne moo fa ñëwee la ma nekkee lay nekkee mu nekkee lay nekkee rek daaw da sow kasaalik ñun ñëpp ñoo bokk luñ nekk yal na yàlla may ñu nekk benn yàlla yàlla dimbale ñu jëm jaay rek ci baatin yàlla jàppale ñu ba liñ bëgg ñu am ko barki yoon ci yàlla Muhammad Sow alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah